ñu waroon fee dalal fii les acteurs du transport routier au Sénégal ngir ñu waxtaanee xew-xew bi nga xam ne moo lëmbee woon dëkk bi fan yi ñu génn muy grève bi nga xam syndicat yi nga xam ñoo boot transporteurs yi fii Sénégal ñoom ñoo ko organisé woon amoon ay revendications yoo xam ne moom lañ amoon teg ko ci kaw taabal bi doon ko sàkku ci état bi ngir ñu wallu leen ci finalement suñu invité dañoo am gànt ba euh, mujjee ñu teew ci émission bi ba tax na xam naa dañ koy dàq ba ci beneen yoon euh, di ci jéggalu mbokk yi bu baax a baax di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mbooleem problème yi nga xam ne ñu ngi koy traversé fii ci Sénégal yàlla nañ ci borom bi tabaraka wa taala defal tey siir ba mu teggeeku di leen jox dig daje incha allah ba ci beneen numéro wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu